Zaadul Muchafir di fédération boo xam ne mi ngi nekkee ci réewum kanada ëmb mbooleem daayira yi nga xam ne ñoo nekkee ci moom moomile réew tur wi bàyyeekoo woon ci sëriñ Saalihu Mbàkke ñenn ci taalibe yi nga xam ne ñoo nekk ci boobile fédération ak jëwriñ yi nga xam ne ñoo nekkee fii ci Sénégal ñoo ñëwoon ci Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbàkke moom sëriñ Bassirou xalifa général des Mourides doon ko jébbal liggéeyu fédération bi ñu xayma ko ci million millions 500 francs di addiye joo xamante ni ñoom fédération Zadul Muchafir bu Canada dañoo jaayante woon ba sëriñ bi sooboo ci liggéeyub université bi ñoom ñu ne juróom benn weer yu ne daañu ñëw jébbal sëriñ bi seenub addiya loolee mooy ziar bi nga xam ne moom lañ amal ci kanamu Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké moom sëriñ Bassirou xalif général des Mourides ci dimanche ji dëppoo woon ak le 24 septembre 2022 ci Touba Mbacké ñu jébbal ko mboolem addiye ji jaayantewaat ak moom fas yéene laxasuwaat sóobuwaat ci liggéey bi ànd ak moom liggéeyub complexe Cheikh Ahmadul Xadim bi jëf ji nag sëriñ bi santaat na leen ci bu baax a baax gërëm leen ci seenub taxawaay waaye liggéey bu am solo bi nga xam ne ñu ngi koy def tem bàyyee ko ci mbooleem fédération bi ci njiital sëriñ Moussa Dieng la ak Pastef gi nga xam ne mbooloo mi ñu koy wane bañ dooree liggéeyub complexe Cheikh Ahmadul Xadim bi ba léegi. gannaaw ba ñu santee Cheikhul Xadim ba mayaat ñu ñu ñëwaat fi ko baaxoo def juróom benn weer yu ne ñu takkaat suñuy laxasaay def ko aw say mbooleem muridi Canada yi nga xam ne ñu ngi dajaloo ci fédération Zadul Musafir tey ñu ñëwoon di ziar suñu yaakaar yi àddina ak mu Cheikh Mouhamadul Muntaka di ñaan saa borom bàyyil ñu ko fi def ci dundam gi kéemaan mu yàgg fi lool ànd ko wér man ak tal nañ ko baaxoo defee rek lañ ko defee waat dajale suñu ñaq ren nag mu toll ci 34 millions 500 ñu jébbal ko ko boole ko ak i jooy ak xeeb lool. fas yéene nag di ko ànd ak moom di ñaan saabaroom borom mi dara tawul mu bàyyil ñu ko fi mu yàgg fi lool ànd ko gu wér te mbooleem liggéey yi nga xam ne ñu ngi koy bëgg ko defal ca Canada ñu ànd ceeg tawféex ak jàppandalu Cheikhul Khadim loolu daal moo doon tànk yi nga xam ne moo fi indi woon tey murit bu siyaar daal day ñaan saa nangul ko siyaaram ci barke Cheikhul Khadim ñu ngi sant di bu baax di ñaan nag ñu di ko yàgg di def di ko yàgg ànd di ko fi fekk moom mii di suñu yaakaar yi àddina ak àlaaxira waaw kay eh, ni ko sëñ Baye Laat waxee rek kon alhamdulilahi rabil alamin eh, bi nga xamee ni yëkkati nañ addi yi ba agsi ci sëriñ bi jox ko ko mu nangul ñu ko tey ñaan ñu yàgg ko ànd ak moom lool lool lool bi gis na jëf yi gis na pasteef bi nii mu ñu ko nangule liñ ciy soññaatoo rek li ci soññaat suñu bopp mooy ñun ñëpp ñu takkaat sunu laxasaay te xam ne ab murit moom bu xasee ba jébbale addiye daa war a takkaat laxasaayam dem ci waar wi te fas yéene dajale geneen addiye ju mu indi kon nag nan xam ni fii ñu toll mel na ne ay murit yu yees peq lan doonaat fas yéene duggaat ci tool yi takkaat laxasaay yi tey joxaat rendez-vous ñëpp fii ak 6 mois fii ci Cheikh Mamadou Mountakha nin ko baaxoo di defee te dig ko ko dañ ne ko Mbàkke de fas yéene nanoo ànd ak yow sa liggéey bii juróom-benn weer yu ne sunu àddi yi jóge ca Canada ñëw ban ko tàmbalee ba tey nag sëñ bi mi ñu ciy defal ndam kon nag lii tey ak soñña rek te xam ni fii ñu toll moom murit bu ne na takkaat laxasaayam te xam ni moom nelaw jeex na acca murit acca murit dina laa xamaana. waaw di santaat eh, Serigne Touba Serigne Mountakha bu baax a baax a baax ci teewaay gi ak ñëw eh, jàpp ci liggéey gi nga xamante ni ñu nag eh, Touba Canada yëpp ñoo fi ñëw jébbal suñu àddiya comme ni ko sama jëriñ waxee rek. maanaam chaque six mois ñu dajale suñu addiya dajale suñu ñaq ñoo jëbal ko sëñ sëñ Touba sëñ Muntaxa ñu ci sant bu baax xam naa kàddu yi du gudd di sant sëriñ Touba di sant sëñ Touba di sant sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg loolu te wér jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf ñoo may kàddu yi sant yoo xam ne ñu ngi koy yëkkati di ko teg ci yi sëñ Basiru Mbàkke te ñu gën koo xam ci sëñ Basiru Mbàkke Xelkom moom mi nga xam ne moom la ñu baaxoo di àndal liggéey tey nag moo amoon ay gàllankoor ba tax mu yebal ñu ni ñu ñun ñëw rek buñ ñëwee mel na ni ñëw na moom it ñu ngi koy ñaanal ak wér ak man ak tal teñ yàgg koo ànd ak moom di di fi ñëw di fi fekk Cheikh Mouhamadoul Mountakha mi jërë ngeen jëf. ñoom fédération Zadul Musaafir bu réewum kanadaa ci njiital Serigne Moussa Dieng kalam la fas yéene laxasuwaat jaayantewaat soobu ci liggéey bi fas yéene ko ànd ak Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou ndax ñoom nee ñu fas nañ yéene liggéey bi du laal suuf benn yoon.